صل على محمد سيد الحرب والعجاب internet yi euh, ñoo ko gisandoo fii ngeen di gis nii fii lañ naroon a dënc Serigne Cheikh Béthio Thioune euh, laataa ñu koy laataa muy am coppite ñu yóbbu ko sa diwaanu Touba ñoo ko gisandoo ni euh, taalibe yi nag ñu ngi ñëw di dajaloo di fi ñii di sujjoot ñii di ñëw di zikkër ñii ñëw def seen cercle di kuréel mu doon nag mbir mu kéemtaan loon mbir mu daw yaram lool lool lool sax ñoo ko gisandoo nii fii lañ ko naroon dënc على محمد سيد العرب والعجاب